ensemble ñu booloo rek mooy tax ñu mën koo redresser waat. waa xam nga wax dëgg yàlla bu bu nit taxawee ñàkk gëm yàlla tax nga naan seen seen projet bi nee nañu euh, ni ngeen xaar fii ak deux mille deux mille fii ak vingt cinq mhm. muy deux mille cinquante bi nga xam ne moom lañ la alors que pourtant Ousmane Sonko loolu la sentiroon ba moom bi ci panel bi bi ñuy def seen panel bi sax la ko wax. mu expliqué mu ni attention. Euh, am na ñoo xam ne nag mën nañu xëy naan non Sénégalais yi man ngeen xaar fii ak deux mille cinquante mais euh, projet bi euh, deux mille cinquante maanaam seen vision ñoom ak li nga xam ni moom la ñu bëgg a jëmbat ci Sénégal bu nekk benn Sénégal boo xam ni dafay nekk Sénégal bu juste prospère. Euh, diggante bi maanaam dur bi faaw mu dem ba deux mille cinquante ñoom loolu la ñuy wax. Mm-hmm. mais tekkiwul que ni dañuy wax ni Sénégalais yi kaale ngeen doo et malheureusement malheureusement pour ngeen ñi bu ñu xëyee. Euh, amuñu lu ñu wax <laughs> toog nañu di wax ni nee ñii nee na ñu ngeen bàyyi ba deux mille cinquante pour que <laughs> wala ngeen muñ ñi nee nañ ngeen muñ ba deux mille cinquante pour que projet bi mën a sotti wax dëgg yàlla ah kër de boo koy tabax man mën nga lijjanti ba am terrain. mën hmm. nga xam nga boo amee terrain it amugoo kër. mais boo commencé tabax ko dëgg yàlla doo commencé tey tabax bi tey mu mu àgg tey. déedéet c'est impossible. nga mën nga jënd kër tabax si ñaari néeg dëkk si. yaag sa yaay. boo demee ba amaat dara. waaw dolli beneen nit. waaw say rakk ñëw. <laughs> boo demee ba amaat dara <laughs> def saal ci wet bi. waaw <laughs> boo demee ba am dara. mais mën nga teg dara ci kaw. bu dee trois nga bëgg quatre cinq ça dépend rek. ci bu bi ngay dëkk foofu. di waaw waaw. Oh. sa dana la wàcc. merci beaucoup mais l'essentiel mooy am nga teere ba pare rek. waaw loo fa def yaa xam moom. waaw mhm. boo fa defee benn néeg. yaa xam moom ngeen dem di fa di fa di fa dajaloo. ah xanaa lu mu yées yées yées location dana leen wàcc. waaw waaw léegi nag ñu bëgg a détourner affaire bi bëgg a gëmloo Sénégalais yi kat yi dëgg yàlla te réew yi ci bare xoolal réew bee doyen yow yow mi ngi xam ne yaa ngi ëpp expérience ci métier bi Chine jële fu ci mel ne Chine. mais xoolal maanaam mais xoolal réew yi développé rek nga xool ñi nga xam ñoom ñoo fa jaar develop ko mais lu ñu teg benn projet la ñu teg. waaw mais mais mais attends. mu leer nañ un projet bien défini boo xam ni ñu dëkk ci réew ma boroomi xam-xam ñoom ñoo ko defar waa réew ma toog fa liggéey ko nii kese la fa demee léegi nag loolu la Ousmane Sonko nii euh, Sénégal gi bu ñu bëgg àgg fi ñenn ñu àgg wala ñu jëm leen a dabi il faut que aussi tamit ñu jaar ci yoon bi tey mais yoon bi moom moo nekk nii tey yow mii boo bëggoon tey état financé la mhm. nga ne da am benn entreprise mais da nga leen indil business plan moom nañ daan projet boo xam ni euh, wax yàlla c'est un travail scientifique boo xam ni tey mais euh, dañ ciy liggéey mhm. nga nga xam ni da ngay da nga naan budget temps laa soxla lii laa bëgg a démarrer lii mooy sama fond de roulement trois mois yi lii laa ci bëgg a réaliser ba un nga teg benn benn benn benn projet business plan boo xam ne da nga naan te taxawal na entreprise boo xam ni bu ma liggéeyee cinq ans bëgg na entreprise entreprise bi mel nii ak nii ak nii ak nii ñu xool naka lañ la koy financé li moo loolu rek moom moo nekk ci parce que jàpp naa ne di yàlla mbir mi sax jafewul nit ñi comprendre ko c'est facile pour man à expliquer xëy ñenn ñi nag ñoom ñoo ci bëgg a borox loolu. Euh, ñoom ñoo ci bëgg a laay wax. des fois nag soxor li comme doy wax. pour pour ak mauvaise foi. c'est c'est ça quoi en fait. moo tax euh, démb. dama doon expliquer benn affaire ci li waajooju waxoon ne dañoo jël huit pôles pour huit pôles régionaux yi ci plan yam lañ ko sàccee mm-hmm. euh, ma ne du dëgg parce que boo xoolee programme Pastef jot na coalition jot na 2019 oui boo xoolee ci seen programme dem naa ba xoole ji ci sixième point bi <laughs> mu ngi foofu ni ma ko waxee nag am na ñoo xam ne bon je leur comprends ñu ne euh, non kooku jarul tontu gis nga penc mi. Mhm. amul jarul tontu. gis nga lépp loo xam ne du dëgg ci ñu yëkkati ko ci penc mi ak ci ku munti jóge il faut rétablir la vérité parce que il faut pas quand li nga doon wax léegi ñun ñoo fi toog ne benn pompiteer mën naa yàqu saako mën naa yàqu saako pompiteer. du la ñuy wax ñu wolof. moo tax képp koo xam ne da nga wax lu dul dëgg ci pénc mi ak dayo boo mënti am bu kenn jarul tontu parce que tontu wuñu kooku dañuy rétablir la vérité pour ñiy déglu parce que du ñëpp a bokk niveau de compréhension am na benn homme politique bu mu dégg si télé bi mu ne xaw ma fan la demoon toog dégg benn booy jóge fële rek ñëw ne ko ah grand kon yéen yéen yéen kon yéen projet waajooju ngeen sàcc Maria gis nga il faut ngeen xam ne yow ni nga mën a comprendre man ni ma mën a comprendre niveau bi ma am pour comprendre du ñëpp a fayam moo tax penc mi boo yëkkatee lu dul dëgg ak ci ku munti jóge ndax ku am dayoo la wala ku amul dayoo nañ ko weddi en avance mais il faut jamais commettre l'erreur naan non kii de jarul sax tontu c'est-à-dire que mensonge ci débat public ak ci ku munti jóge il faut rétablir la vérité et avancer. parce que xam nga man lan laay bañ ñu dem ba benn benn pompiteer mën na yàqu saako pompiteer. Hmm. xam nga Macky Sall bi waa Pastef fi jógee nekk ci seen réseaux sociaux yi lan la doon wax. Sonko c'est un candidat des réseaux sociaux ah. il n'a que voilà les les gens qui sont derrière leur machine. tey Sonko moom mu doon wax mafia kàcc kàcc waaw mafia kooku waaw mafia sociaux du ko kooku battre tey te bi mu demee ba fin mandat la rendre compte puissance bi nekkoon derrière les réseaux sociaux mu génne xaalis bu weex tàll lu leer laa lay wax génne na xaalis bu weex tàll il a recruté des jeunes pour qu'on essaie de renverser cette tendance là bi amoon ci réseau sociaux yi booy lekk seen xaalis dem toog jàpp seen jàmbur ndax booy yañ doon recruter à l'époque booy yooyu ay patriotes lañ woon man dama ci xam ay booy ñu ne xale yi amuñu carte popularité ay xale ñu ne xale yi amuñu carte. ma yaakaaroon sax carte wave la. moo tax gis xam nga def penc mi. <laughs> ak fu nit mën di féete ku fi yëkkati lu dul dëgg on rétablit la vérité et on avance. loolu du tardement. parce que nit ñi ñoo bokkul niveau de compréhension tey am na wax yoo xam ne maa ngi jégalu ci kàddu gi. Hmm. wax ji lu mu dofee dofee dofee dofee dofee. am na ñoo xam ne jàpp nañ ne. loolu dëgg la parce que dañoo amul la vraie information. te loolu bu ci kenn tay si on veut développer Sénégal la lu nit wax à midi lu dul dëgg boo amee lay dëgg à midi une minute teg ko ci penc mi et on avance. mais que ñi bëgg nañ sàmm Sénégal développé aussi parfois tout pose la. waaw léegi nag ñooñu da ngay xeex ak ñoom bëgg nañu tamit. waaw mais da ngay xeex ak ñoom xam nga lan mooy problème il faut leen aussi le temps non c'est-à-dire que gis nga loolu ñoom duñu leen ko may ils sont dans leur rôle malheureusement ils le font de mauvaise foi parce que nee naa la. gis nga politique c'est une affaire de gentleman. gis nga gis nga gis nga ñoom duñu duñu xàddi. lu ñu sonn suñu taay xam nga damay damay fàttali histoire wu lu <laughs> euh, mu tuddati yonent yàlla Yuusuf la yaakaar naa ni ak euh, euh, Yahuda nga xam ni moom xam nga ay ay doom baay lañu nga xam ni ñoom li doon li li ñu doon bëgg a xëccoo ñoom ñëpp mooy ku ci donn sa baay parce que seen baay yonent la woon mais bi ñu demee fi ak fi ñu jaar ak Yuusufa histoire bu bu gudd la boo xam ne fi ñu jaaree mu sànni ko ci teen ba ba ni ko buur ba jëndee mu màgg ba jiite pale ba nga xam ni ñoom sax bi ñu demee ba dajawaat ak moom ñu xam ni nag léegi yëf yi moom jeex na euh, euh, Yuusufa jël na maanaam euh, donn na yëf yi ci seen ci seen baay mais ñii bi ñu nangoo mais moom ba tey taxul mu tekki ay jaajam dafa demaat fee continuer euh, jéem a xool naka lay taxawaate pour pour pour pour voilà pour jàmmaarloo ak ki nga xam ne moom rek pour wax la que ni ñii nii même su fekkente ni élection yi jàll nañu fi ba ñu renverser leen duma leen jël bu set ci bu leer naññ ñu jëmaat ci yeneen élection yoo xam ne ma leer na ma ni duma yi moom moo nar a gën a leer <laughs> du tax ñu tekki seen ay jàjj du tax ñu taxaw mm-hmm. te ñoom bi ñu fi nekk ji nekk ci nguur gi yenn yi di ñoom ñoo ngeen di ko wax directement dafa mhm. am ñu leen nekkaloon ci yenn ñenn fi yenn lieux yi muy euh, plateau yeeg feneen fekk feneen fi ñooñu ba tey ñi ngi fi continuer ji leen fi nekkal loolu il faut que sénégal yi ñu xam ko moo tax loolu aussi li Samba wax nekk lu ama am solo ci benn côté parce que ñoom dañuy continuer def seen liggéey ah, di xool naka la ñuy defaat pour convaincre nit ñi wax leen que ni li ngeen fi jëlee ndekkee moom mooy baax baax bi parce que instant bi yëf commencé na metti xam nga boo bëggee lu baax nag il faut que nga ñeme lu métti tuuti moo tax Sénégalais il faut que ñu jëm leen expliquer euh, encore une fois wax leen que ni li ngeen bëgg nag ah bu ngeen bëggee da ngeen a bëgg njëriñ lu sax dàkk il faut que ci commencement bi mais mu xaw a métti tuuti ñeen jigéen ñi bu ngeen sey lu ñu leen di wax da <laughs> ngeen muñ commencement bi day metti dañ lay yàpp ñu la muñal mais la fay neex yi yaa fay liggéey waaye Sénégal gi nag wax dëgg yàlla instant bi Sénégal bu neex eh. nañu muñ parce que li fi war a neex hmm. yi ñu ngi muñ dama la koy wax de c'est-à-dire que dafa am ñoo xam ne dañuy def semblant ne dañoo gëm projet bi di jéem a génne yenn kàddu yi mais gis nga les sénégalais qui ont voté pour ce régime là les cinquante quatre sénégalais et plus yu voté régime bi xam nañ ne ça demande de la patience. xam nañ ko de dafa am ñoo xam ne nag ñuy buruxlu ci biir di def semblant citoyen lambda di wax naa non ah, xaar bi muñ mais sénégalais gis sénégalais sénégalais xam nañ. li ñu fekk ci réew mi xam nañ ne du lu ñuy régler du du mais loo xam ne depuis du matin au soir teguñu fi birig bu baax li ñu fi teg lépp ay cigin cagañ la wax dëgg yàlla kooku boo ko bëggee defaraat nag mais mënu koo defar ci benn espace su 4 à six mois nañu waxante dëgg. Ah, léegi nag ñoom bu fekkee. Sénégalais xam nañu comme ni nga ko waxee fi mu ne nii eh, bëgg nañu eh, génnaat voilà profito ci ci ci situation bii nii pour bon am ñu wax eh, mënta ñàkk parce que ñoom ci seen rôle la ñu nekk mais li ci am solo rek mooy que ni Sénégalais yi xam ni vraiment yëf yi mënta yombe noonu aussi mënta gaawe noonu. bu sax ñu war a ragal. Sénégalais xam nañ loolu mhm. yi depuis 1960 ils la xam nga lu waa ji doon wax y'a les uns y'a les autres les extra les extra les extra ñoo woote à cinquante quatre pour cent xam nga koo xam ne ba mu juddoo ba tey dafa nekk ci galère ah kooku boo ko ne muñalaat tuuti dana muñ eh, doyen Samb li ci ëpp solo est-ce que xam yi maanaam yàgg nañu xam ni ñii fi nekk fii ñu jaar ni jëmalul fenn remé amuñu woon gisuñu woon homme politique boo xam ni mën nañu wékkee ci seen yaakaar ci ñoom. Ah, koo xam ah. maanaam comme ni ñu amee yaakaar ci Ousmane Sonko. Mm-hmm. parce que dañuy yàgg am déception ku ñu am yaakaar ci yow ba xeexal la Macky Sall moo ci mujj boo dikkee askan bi jaar nii nga jaar nii. Mm-hmm. moo taxoon mujj gi ñu bare bare toog. jàpp seen njàmbur ni ah nañu nañu nekk ci lu ñu nekk mais bu ñu demee nag Ousmane Sonko génn woote na lu yàgg nit ñi toog di ko seetaan naa ndax moo gaa yi ñooyam ñu ci bëree bëri naan moo gars yi ñooyam Ousmane Sonko daf koy wax sax naan bëri na ñoo xam ne tey ñoo gën a gëm projet bi am na ay temps sànni nañu xeer fii ba sonn. Hmm. bëri na ci ñoo xamante ni si nii Ousmane Sonko yàgg na génn fii di leen wax dañ naan moo gars yi ñooyam mais bi ñu demee nag ba Ousmane Sonko indi ay firnde yu leer naññ. ak ay doxalin yu leer nañ ñu xam ni kii nag wax dëgg yàlla mooy waa ji. merci beaucoup nga gis nag li li li li li waajoo ji doon wax naan ba mooy borom Dakar non naan les et les et bi. voilà ñooñu toogoon a après ñooy doon les uns. Mhm, ak les autres léegi nag ña xam ne ñoo nekkoon les uns les autres ñoom ñooy doon les extras les extras <laughs> <laughs> parce que réew mi dafa nar a tegu ci yoon des gens sont enrichis